Ibrahima fekk la fii ngay def ay ndogu lan moo la euh, ja lan moo la dooleel wala lan moo la poussé ba ngay def li ak bi nga koy door ñaata la woon. waaw soxna Diarra ñoom ñu bu baax di ziare waa Waarwi TV yëpp ah ñun ay Baye Fall lañu bu kor gi jotee dañuy joxe suñu addiya kër sëñ ba pare nekk fii eh, di joxe eh, ay kafe ak mburu incha allah rabbi ah, ñi nga xam ne ñooy waa koñ bi yëpp ci la jël see café ñu leen di jox café ak ndogu. di leen jox mburu waaw liggéey si Yoro Faa rek lañ ci jublu nag waaw lii nag yaakaar naa juróomi at ci ren ñu ngi koy def juróomi at ci ñoo ngi koy def chaque jour ba koor gi jeex bu quatre heures jotee rek ñu bàyyi suñu yitte yëpp daal di tàngal café gi bu gën a ñëwee ko daal ko yóbbu ci kër yi waaw boo ëllëgee ñu defaat noonu. bi bi ngay door ñaata nga may doore cin bu ndaw rek laa doore woon cin bu ndaw laa commencé woon. defar suñu koy suñu kër ak kër yu kër yu mat juróomi kër rek waaye fu dem na ba ñu ñuy jox café yaakaar naa bu matu ñaar fi kër ëpp na ko wala mu jege ko waaw kon daal mbiru Seera moom day day jëm ca kanam rek waaw man nag maa def yëpp daanaka waaye nag yenn saay euh, nit ñu baax mu gisee jëf ju baax moom dañ ci daal di sawar def yenn saay am na ñu ñëw joxe kilo suukar wala ñu joxe kilo café waaw am na ñoo xam ne moom gis lu baax rek dañ cey dugal seen loxo waaye nag ñun ñoo ngi daal kuñ ci fekk ñoo ngi waaye kuñ ci fekk tamit ñoo ngi ci daal waaw. def fukki ñuy def nag ndogu yu mag yi moom fukki fan ak juróom-ñaar lay doon fee ca daara ja dañuy jënd ay ganaar yu bëri togg ay ndogu yu baax daal koy jox askan yi xam ne ñooy waa kër yi waaw. jaajëf waaw sëñ Ibrahima Gueye Baye Fall. ànd ak sëñ Baara si la ñi moom fi lay jàppale ci ndogu yi. ak soxna yu baax yi soxna Yaasi soxna Asu Mbàkke ñoom ñoom ñoo ñu jàppale ci liggéey bi waaw. waaw mu xale yi nii ñëw bu ñëwee ñoom la ñoom la waajur yi di yónni bu ñëwee ñooy si taxa bi daal di ko yóbbu chaque jour ba koor gi jeex incha allah rabbi fu mu xoolee juróom-ñaar nag dañu def ay berna moom ay berne yu bëree bëri xam naa su boobaa sax dañ leen woo su ko defee ngeen ñëw bu soobee yàlla incha allah waa waaw kay soxna si ñu ngi leen di saare bu baax euh, ci initiative bu am solo bi waa sama diggante sëñ Ibrahima comme ni mu ko waxee léegi ci ay kàddoom rek lii muy def ci kase bi wàllu koor gi bu jotee jamono bu ne ay at yu bari nag mu ko taxawal fii ci Madiyana euh, ci gox yi ko jege yëpp mën naa ne li ëpp ci dig-digal bi mu dëkkee moo leen di jox café seet bi fi café ñoom ñëpp mu sedd leen café jën war a jëfandikoo ci koor gi beneen bés jolliku mooy ñi nga xam ne fi ñu dëkk sori na barab yu fasante wala dëkk xam Madiyana dafa yaatu ginnaaw umul xuraak cuuneen ñaare waxtu yu dog yi buy jot demukaay yi dina jafe-jafe bu toll ne ñi ëpp ci ñiy dem waxtu yu dog fii la leen di fekk bu defaree kafe gi kenn ku ne mu fekk la fa ne boole koo mbooleem li war a jëfandikoo ci koor day defar ndox mburu def ci la ci war a ànd lépp mbooleem loo xam ne daan nit bu wooree ba ngoon dana ko dana ko dana ko soxla ci ñu war a jëfandikoo ci koor da koy defar jamono bu ne jox ko ñi nga xam ne waxtu doog ñoom la ñu fekk ñii ne ci kër yi day tàngal kafe mboolem tasaare ko ci mboolem koñ bi ci barab yu barab yu yaatu ci biir koñ bi ñoo xam ne bu koor xasee jot di leen wax ne leen bu leen tàngalati kafe ñu ñaan nag mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi di liggéeyal sëriñ bi ñu xam ne lii da ci xaw a néew doole waaye bëgg na mu ëpp lii mboolem fu waay nekk tey liggéeyal sëriñ bi rek weeru koor moom weer la woo xam ne xam ngeen ne weeru xéewal la weer la woo xam ne bu ñëwee jëf ji suñu borom da koy yaatal ci mbooleem mbooleem mbooleem jët lu bari dañ ci mën a liggéeyal sëriñ kenn ku ne def sa lox ne wax dëgg mi ngi am yenn saa yi ñu indi juróom jox ko ne ko defal ma ko ci yenn saa yi nit ñëw indi fukki dërëm jox ko ndax yéene nit ñi ni toll ak am na ñoo xam ne jëf ju baax buñ ko gisee rek dañu xam pay ganam mën a toll duñ ci xeeb dara lu ci waaye joxe mu defal la ko waaye it yéeneem passé na loolu ndax loo xam nit def na ko ay juróomi at mi ngi koy defal fii ba sañoon mu passé fii moo tax nag ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi yalwaan mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi te seen doole egg ci ñu jàppale ko ba yéeneem yéene ji mu ci liggéey bi lépp mat ndax bëgg na mu mu mu passé fii mu nekk bëgg bëgg na mu doon loo xam ne bu egseetee waxuma la Madiyana waaye daanaka xaaju Touba bépp li ñu war a jëfandikoo ci koor ci moom lay jóge yéen a jooju la am amul doole ji nag waaye bëgg na ko ci jàppale waaw xanaa di wax ne rek fii mooy Touba doomi Touba moom lu mel ni dina leen yomb ndax dañ leen cee yar dëkk bi boo dee xool daanaka dëkk social la da ñëw ñu may la nga dëkk léeg-léeg gis nga bi weer wi di teru sëriñ bi xalifa bi yónnee na ay ndimbal yoo xam ne nii Touba ca kanam moo ko doon taxaw jox ko askan wi fi dëkk tuuru jumaay Touba boo demee danga nga fa fekk biir jumaa ji ak li ko wër ay ndogo yoo xam ne dañ koy joxe biir kër suñ Touba yi kasaalika noonu nga koy xoolee ci quartier yi doomi Touba ñoom ñooy doxe noonu te loolu it suñ Touba da ko bind dox ci social dimbali doomu aadama daal mooy mooy li nekkoon mission te loolu da ko da ko suuxat ci jëmm yi nga xam ne ni ñoo aju ci moom euh, boo gisee mu bind wa luqmatan ataytaha zi jaa'i afdalu min binaa'i alfi jaamia benn tibb ñam nga jox ko aji xiif mu gën tabax junni jumaa kon lii kenn du ko ne guléet fii waaye nag moom positif bi mu ciy doxee mooy yéeme ndax gis nga gisoo fi mbooloo gisoo fi propagande gisoo fi dara te day dox rek ba dara dab ko waaye taxul di xaar dara dab ko saa bu xëyee jël wër wërsëgam fës yéene joxe ndogu xaaru ci kenn loolu nag ñu ngi ko ciy sant bu baax di ci gërëm ndax bu ñëwoon wut eh, di ko laajit mu yàlla ndax lu mel ni diis na mbana goo xam ne da nga koy def kafe ba mu fees wala ko ay mburoom di ko jox jaamu yàlla diiru fanweeri fan métti na ci kenn nit waaye ñu ñaan suñu borom rek mu kàttanal ko eh, roof ko kàttanu zaahir ak baatin ba mu mën a àggale mébétam waaw di sant ñëpp di leen dokkeel jërë ngeen jëf.